jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen nga ngi ànd ak CCB ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun gën wax ngeen gën a bu baax te xam ne seen mbégte lekk mooy sunu yitte ñuy gërëm nag bu baax kilifay diine yi kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñii nga xamante ni ñooy aar daara waaye di ndokkeel bu baax waa jamra ak ñii nga xamante ni ñooy aar jikko yi waaye ñu fàtte mukk sunu mbokki handicapé yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax suñu mbokki bopp yi nga xamante ni ñu nga fële sa bitim réew ñu leen di siyaare bu baax moo xam ñu góor ña moo xam ñu jigéen ña la leen yóbbu bitim réew rek mooy daan seen doole ngir fexe ba seenum réew jëm ca kanam kon jërë ngeen jëf di soññaat gouvernement bi mu taxawu leen ci seen ay bëgg-bëgg ndax euh, yitte Sénégal rek moo leen yóbbu foofu sooy bu nag di gërëm ñi nga xamante ni ñooy takk der yi chaque jour nga dégg ma leen di gërëm fii di leen ñaanal fenn fu ñu mën a nekk si àdduna bi rawatina ñu nekkal fa Sénégal ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen ñaanal ndax euh, seen yitte gépp mooy naka la ñuy def ba Sénégal ñoŋ naka la ñuy def ba kaaraange am ci réew mi kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax waaye di jaajëfal commandant bi nga xamante ni mi ngi fële sa fedar bu ñu ngi koy jëfal te di ko ñaanal yàlla defal ko ndam ak sutura ak i xéewal ndax liggéeykat la te it borom fulla la te it ku bëgg li muy def la te man ko lool lool lool moo moo jiite foofu fedar bu ñu ngi koy ñaanal yàlla def ko fa defal ko fa ndam defal ko fa sutura ak i xéewal wax dëgg yàlla daal am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax ndax fi mu jaar fépp ñu ko siifur ak ñi ko xam xam nañ ni lam fa jaare mooy nu rafet waaye nam fa jaare mooy dëggu nam fa jaare mooy nu leer ba yàlla dogal tey jii mu jiite foofu di feder bu ñu koy ñaanal bu baax a baax garaat yi a yokk ñu ngi koy ñaanal bu baax a yàlla gën yokk ay suturaam ak i xéewalam wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax a baax a baax liggéeyam rafet na waaye sony bu duñu fàtte mukk suñu mbokk yi nga xamante ni ay baykat lañu ak sàmmkat ak nappkat yi ak ñi nga xamante ni ñu ngi si marché yi li ñu andi tey jii nag mooy dañuy waxtaanee tolluwaayu politique rawatina lii nga xamante ni am na ci mbirum ensemble bi mooy mbirum phobie yi ak lii nga xamante ni am na si waa Y'en a noonu lañ ko mën a waxee euh, tey jii nag ñu doon def euh, li ñu doon def ñoom Ousmane ko dem fa ñëpp daal euh, ndax loolu lu jaadu la ak tolluwaay bi am fii ak gars yi bëgg see laxas politique loolu dinañ si daral borom xam-xam bu mag mu ñëw leeral ñu ko am leer nañ ndax lii ñu ñuy nekk waaye Y'en ndax dañoo nekk si dëgg wala dañoo nekk si ay caaxaan ñi leen di encouragé dañoo nekk si dëgg wala dañoo nekk si ay caaxaan gouvernement bi dañ leen a bëgg a dëgg ndëgg sërax pour euh, sànq leen wala bëgg ñu leen a sànq loolu lépp dina si indi ay leeral bu baax a baax a baax waaye daal son bu jóob man fii bu ma fi toogee dëgg rek laa fi toogal lim lépp lu ma wax damaa jàpp ni mooy doon lii doon dëgg waaye bokkuma si ay askan wi laa faral ak opposition bi laa faral ak gouvernement bi laa faral faruma ci kenn dëgg laa àndal képp ku ma jàpp ni yaa ngi ci dëgg mën la yaa ngi ci dëgg képp ku ma jàpp ni nekkoo dëgg mën la kii li nga nekk ay caaxaan la baal sa caaxaan yi nga kilifa nag ñun ñëpp xam nañ ni ak waa ji ñoom ñi dañoo juum te képp ku leen di wax dëgg da nga naan leen yéen da ngeen a juum léegi nag buñ juumee danañ leen corriger buñ leen corriger ëllëg ñu moytundiku ko ko ndax dafa am foo xam ne boo fa tollee am na loo xamante ni waratu la beneen bi gouvernement bi bu fekkee dëgg leen ñor bu gaseli mii nañ ko jël ñu delloo ko si kase bi denc ko fa ba ay mbiram leer naa ñi bu dee moo def ñu denc ko si kase bi bu dee defut ñu bàyyi ko ñu xam bu gaseli ay mbiram ñii nga xamante ñoo nekk ci ensemble bi teñ tudd leen ci ay mbirum faux billets ñoom ñëpp nañ leen jàpp dugal leen si kaso bi bu fekkee nag ñoom kilifa ñii lañ bëgg a jël pour jaxase leen affaire yi foo kii la pour jekki-jekki bàyyi ñoom kilifa bëgg a bàyyi ñii du ñoom kilifa même bu ñu leen bàyyee ñii ci ensemble bi dañ leen war a tëj ci kaso bi dammu caabi ji président Macky Sall lii lépp responsabilité am la képp ku nekkul ci yoon nga farak yow ak ñàkk farak yow nañ ko teg ci yoon mais bu fekkee ku farak yow nga bàyyi mu sedd ku farut ak yow nga bëgg ko naax saayal loolu rafetul te nañ ko bàyyi ñii nag dañoo juum nañ leen wax dangeen a juum te li ngeen nekk dugg njub mooy ñii nga xamante ñooy waa Y'en a marre nañ dem rabiwaat te bàyyi réew mi nga xamante ñi ngi fi nekk di kaasal réew mi te wax dëgg yàlla lii ñuy def réew mi soxlawu ko kon nañu dem delluwaat sa rab ba fexe génn ay kaset yu neex ñu jaay ñu ko ñu jënd ko donte kaset yi neexatut son yi bu jóg buñ demee ànd ji ak baay Cheikh Fall ba ñëw danañ dalal sunu gan gu mag googu yi waxtaan ak moom si politique son yi bu jóg. Serigne Cheikh Fall borom sifa un ngeen di àndal kenn dootu ko laajte ci biir réew mi ak ci biti réew Sénégal Afrique ba Europe ñëpp garabu jabetam yi la ñuy waxtaanee Serigne Cheikh Fall borom boo amee jabet demal hôpital nga xool sa jabet fan la toll ngir del si waat ñu jëflante cëy bu ñu paree yéen ñi am jabet bu leen tànqamlu moo mën ci jabet yéen ñi yor ndoxum siti na seen xel dal mi ngi ci garab yu doy waar lépp lu jëm ci hémorroïde ñu yor xeetu gémmiñ te feebar yóbbee leen ko dawal ngeen seeti Serigne Cheikh Fall yow mi am teg la ko dawal nga seeti Serigne Cheikh Fall ndax foofu la yam Serigne Cheikh ni ma bàyyi naa xel ñi nga xam ne ñoo yor seeni soxna te mënatuñu ci ñoom dara maanaam ñi tële wala sax ñi néew kàttan Serigne Cheikh Fall mi ngi ceeg lu doy mille force attee boo xam ne loo lekk lu mu bari bari bari tàngalal rek ndox nga def ci dalay digérer lu gaaw a gaaw a gaaw yow mi am ballonnement seere lépp lu jëm ci listixaar ak sangatu ubbeeku bayre ngeen mën a jokkoo ak moom ci ay numéro téléphone am jërëjëf sony bu Diop jërëjëf Baye Cheikh Fall ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax euh, kilifa gi noo def. waaw sant yàlla bu baax Baye yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm baax yaa ngi en seen groupe yëpp di rafetlu seen liggéey ak seen taxawaay. ñu bëgg waxtaan tey jii si tolluwaayu politique. ok lii nga xamante ni am na fële sa ensemble ba ak lii nga xamante ni am na si kilifa ba tey jii ay mbokkam woote woon dajaloo di waxtaan di yaakaar ni daal politique moo laxasoo si mbir mi nga xamante ni xewoon na ñu bëgg laa bàyyi lépp daal pour nga dokartikeel ñu ko kilifa gi. waaw dëgg la waaw def moom fi mu toll nii moom xaw naa doy waar. Mhm. Euh, yi fiir kaw itam ñu ngi koy siifur ñun. Mhm. Euh, di ko observé di ko jàngat comme ni ko Sénégal yëpp di jàngatee. Mhm. donc kaawu kilifa nag moom euh, li ci ñëpp xalaat rek laa ci xalaat. mooy. mooy mooy ne politique moo la ko si ginnaaw. Mm-hmm. ndax euh, nguur gi fi nekk nii. Mm. ñoom képp koo xam ne da ngay dox ci lu daan seen pouvoir ñoom itam dañuy dañuy dañuy fexe pour liquider la. Mm-hmm. maanaam ñoom képp kuy dox ci luy luy luy daane seen nguur. Mm-hmm. jàppal nañu say tànk. ah loolu mooy loolu mooy li ci nekk parce que kilifa lii ñu koy lii ñu koy yi. yaakaar naa ne bëri na ci morom ci dëkk bi. bëri na ci morom. waaw waaw bëri na ci morom ci dëkk bi ndax soo déggee le taw assemblée bi. Hmm. te foofoo gën a garaaw ndax ci institution lañ nekk. kon daal am na loo xam sang bi. Hmm. Hmm. ma kon daal mbir moom bu dee ci réew mi la loo xam ne jaaduwul bu ñëpp dee def moom en tout cas defal yow da ngay def ni ñëpp koy def voilà. waaw waaw non non non du loolu sax xam nga awalan li may njëkk a wax sax ci kaw kilifa. mooy euh, nguur gi fi nekk kuy xeex ak ñoom. da ngaa war a pare. maanaam da ngaa war a pare ci tous les su fekkee pare woo rek bu bul jàkkaarloog na waaw kay. ndax ñoom seen politique ni ñu koy doxalee. Mhm. mooy tous les moyens sont bons sont bons maanaam lépp luñ mën a def pour éliminer lu dañ koy def ñoom. Mhm. politique bu salte salte actuellement moo nekk Sénégal loolu moom ñëpp xam nañ ko. waaw kay. ndax euh, euh, lii kaw ci Sénégal euh, moment bi ñu nekk mosul kaw ci ci ci ci politique ci Sénégal. di mhm. di enregistrer ay nit audio. di filmer ay nit di partagé di boole ay nit ak jigéen hmm. yooyu musul kaw ci réew mi waaw toog fi nga toog saay par kenn di ñëw voilà kon kili kilifa ci boppam hmm. xeex bi muy soxla paradise hmm. maanaam soo xasee ne activiste nga wala yow ngay woote ak patriotisme dafa am lu bëri loo war a moytu loolu man lu rek laa bu ma amee lu may wax kilifa loolu la erreur daal lañ def mooy am ah, si yoo xamante ne dugg voilà ku jàkkaarloog ñu mel ni ñim jàkkaarloo da war a pare ci sa bopp da war a moytu wallaay ndeysaan waaw loolu su amul xam xëy na lii du ko dal lii du ko dal mais ñi nga xamante ni léegi nag nekk nañ si ginnaaw daal di ko soutenir moo gis nga keneen ki nga xamante ni moom it kenn xamutoon ni sax si la ndekete moom it si la ab vidéo am génn na waa ji daal ak otoom la yor gaare ku ñëw rek dugal benn tànk ub <laughs> mu kii la kii ñu ngi jéggulu mbokk yi mu daal lay euh, proposé xaalis daal waxtaan ak yow képp la d'accord yow it si biir nga boole si ak matadi matadi see kàddu ndax da ngay dégg ñaan ah est-ce que est-ce que du maas kaw est du def nangam est-ce que duñ ko xàmmee est-ce que dina def ni wane ni daal yow si ak njubadi ngay dox ndax ku toog sa oto ba rek wax nga luñ lay mm-hmm. xeebe moo xam nag nga lànkal leen ni kii kat xeebuñu ko ndax ñëpp koy def wala nga ni kii kat man fa ma ko tegoon ak waxam yu matadi yi ndax xaalis dëgg la mm-hmm. waaw ba tey mooy li ma la wax ci kaw simolti mooy li ma la wax ci rek mm-hmm. ñoom ñëppul dañoo dañoo pareegul rek. Hmm. waaw te te ñu jàkkaar loolu nanaa la ku setul doo xeex ñoom ñii fi nekk nii ku setul doo xeex ak ñoom. dëgg la. képp kuy jàmmaarloo ak ñoom te say mbir leerul danañ la daane. danañ la daane. léegi nag ñi ma gis tey ñi doon ñi ñi doon ñi doon joxe seen seen seen soutien. Hmm. ñu mel ni euh, parti politique yi ma gis waa waa opposition bi. Hmm, ñoom xëy euh, na démocratiquement lañ lañ leen di jàppale. waaw séen naa fa Ousmane Sonko de. waaw waaw ku mel ne Ousmane sonk ak. ñoom euh, gis naa leen ci. Hmm. ñoom démocratiquement la ñuy jàppale Y'en a marre beneen bi ci def injustice dafa am ci mbir mi. ah injustice ba lañ tànn daal. waaw waaw dafa injustice dafa am ci mbir mi xam nga. Hmm. waaw voilà xam nga su fekkoon ne dossier kilif bi dañ ko traité ni ñu ko war a traité. Hmm. parce que bi ñu demee ba ci biir jàpp nañ ne sax lu bëri lu nit ñi du toogoon amul ci affaire passeport diplomatique ñu ko tuumal. waaye terewul am nañ yeneen i dossiers yu ñu jël pour gàll ko ci kaw pour mën a am ñu ko takkal ba tëj ko ci kaso bi yooyu mooy mooy mooy jaay doole bi nga xam ne. Hmm. moo tax opposition bi jox taxaw na dañ koy jàppale. Hmm. beneen bi ci def mooy yaana maar dafa yàgg a xeex ngir réew mi ak lu mën a xew xam na ne du ñàkk manqué manqué. Hmm. ak lu mën a xew ci défaut yu yuñ mën a am yàgg nañoo xeexal Sénégal wax dëgg yàlla li ma gis man. man damaa bëgg ñu delluwaat si rab ba. waaw parce que sànq rek sànq rek maa ngi gis benn image boo xam ne ñoom Macky Sall mu ngi taxaw président Macky Sall ñoom waa Yaana Maan ñu ngi ko wër loolu 2012 la woon. Mhm, mhm. xaw ma 2011. di ko jàppale. waaw 23 juin bi ñuy wax. Mhm. yaa Yaana Maan daf ci am taxawaay bu am solo ci 23 juin bi. Ah, macha allah macha allah. ñoom bokk nañ ci ñu xeex ba Macky Sall dem pouvoir. ndeysaan tey paaka bi leen ni leen ni Macky Sall la ko yor pour pour dagg seen dox. pour war a dagg seen dox. loolu mooy politique Sénégal. waaw donc sanga bi ñu taxaw di ko jàppale rek ñoom démocratiquement lañ leen di jàppale jàpp ni hmm. ak défaut euh, hmm. na solo waa léegi ensemble Ousmane bi hmm. na ci taxawaay bu am solo kon dana rafet lool moom itam mu ñëw taxaw seen kanam loolu ensemble bi ñu ni ña nekk ñoo leen di jox essence courant ak ndox lekk naan lépp daal ñu leen koy defal ba des dem ci yenn yi hmm. léegi ñoom ñu gis ni daal ñoom loolu leen di jox doyu leen ba ñu dem di def ni kilifa def gars yi ni ñooñu dañ leen war a si kaso bi bu damm si bu damm caabi ji waaw dañ leen war a tëj ci kaso bi bu damm caabi ji man jàpp ne du mujj fenn ah, ñoom kilifa nag ñu leen war a def ñoom it ah waaw ñoom kilifa am na ñoom am na ñoom am na ñoom nguur gi comme ça nee nañ ñoom ñee ci affaire passeport ak njubadi lañ nekkoon ñii ci affaire passeport ak njubadi lañ nekkoon ndax dañoo war a boole ñëpp tëj wala ñu boole ñëpp baal leen dañoo war a dañoo war a boole ñëpp tëj wala ñu bàyyi ñu boole ñëpp bàyyi leen ñu dem seen yoon waaw waaye li ma jàpp mooy loolu bu fekkoon ne réew mi yoon a fi am hmm. jàpp naa ne noonu la mbir mi demee ah neen président bi nee na lépp leer de na na lépp leer waaye li ma gisagum de jàpp naa ne dara leer de li ma jotagum li ma li ma jàngat li ma hmm. jàngatagum ci mi hmm. parce que Ousmane Sonko biñ fi waxee dañ biñ ko fi tuumaale akisa ko ñu ne dañoo war a muuri malaan malaanu kirlaayam. Hmm. assemblée yi dañoo mel euh, député yi assemblée dañoo mel dañoo xartulu woon. bëgg gaaw rek kut ko kut. bala waa kut ko kut balaa man ñetti fan dinañ malaanu kirlaayam sànni fële na ko bisimilah. allahu akbar. te ñii nag ba léegi man lii ma layaam layaam yi ma gisagum nii jàpp naa ne du mujj fenn daw. jàpp nga ne du mujj fenn. voilà parce que am na am na kuñ fi jàppoon ci faux yu bëree bëri bëri ay millions yu bëri ci faux billets te actuellement. Hmm. voilà donc loolu mooy Sénégal. voilà loolu mooy Sénégal xam xam naa ne dama lay dugal dugal si benn porte. waaw boo génnee porte bi ñu dugg Kaolack jeexale ko. waaw porte bi ma lay dugal mooy li nga xamante ni mooy yeewi askan wi. waaw naka nga ko gise nga toogal ma waaw yeewi ah, dëgg yàlla maa ngi ñaan yàlla euh, yaakaar boobu yaakaar bi ci askan wi am mu bañ a tas. ndax askan wi fi ñu toll soxla nañ ku dagg seen buumu njàmm. jàpp naa ni coalition la boo xam ne am na solo am na solo lool ci coali ci coalition yi ma a taxaw Sénégal te ni mu sosoo yi tamit am naa ci yaakaar ne mën naa gudd fan. léegi nag polémique bi ci am ak coow li ci am ak yëpp c'est normal parce que pouvoir bi bëggul coalition boobu taxaw parce que coalition bu Ousmane Sonko bokk nekk chef de l'opposition euh, pire pire nekk ci nekk parti boo xam ne buñ perte parti bu bu am engagement la muy pire. ak taxawu Sénégal muy Khalifa Sall mi nga xam ne Dakar moom ku mu ko mas a xëccoolu euh, ci ay loxoom lay mujj coalition bu mel noonu arrangé wul nguur gi fi nekk allo. waaw waaw maa ngi dégg sang bi li ngay wax am solo rek. moo tax moo tax bi biñ la sosu rek daanaka waa nguur gi dañoo mel dañoo jànnaxee. Mm-hmm. donc ñu ci ñu ngi doon dem ci plateau yi dañ leen yebal rek dégg naa ci ñuy wax ay anti système ak système loolu yëpp dañ ko doon wax rek pour yàq coalition bi parce que buuñ mu taxaw. Mm-hmm. ndax Pastef rek dafa am doole léegi nag buñ bëgg buñ buñ gisee yeneen doole bëgg ñëw doole ko ci doole Pastef mhm. te Pastef kese sonal leen loolu arrange wu leen mhm. yéen donc système nag dama jàpp ne système ak anti système système du du ay jëm système doxalin la. waaw sang bi ndax ñi doon waaw ñi doon wax loolu xëy na Kaaw Ousmane Sonko moo taxu ñuy wax. Kaaw Ousmane Sonko moo moo taxoon ñu wax xam naa ne sama mbokk yi nekk si commentaire yi maa ngi leen di jaajëfal rek bu baax a baax laaj bi nga hmm. xamante ni maa ngi koy bëgg a laaj. di leen si bu fekkee ni ñett ñooñu nga tudd waaw kii par thème ab sëriñ ko moom maanaam taaliba yaa ëpp taaliba yaa sa ëpp kii ab par thème ñaar ñi siis ay par thème nee nañ dañoo am lente ak yoon waaw ñu ne ñoom ñetti ñooñu ñoo fa nekk ñooñu seen kii bi baa dana kii ah mais man Sénégal opposition bi tax ñu wax opposition Sénégal ñëpp a yor ay dossier ah, maanaam loolu mo waaw loolu mooy nguur gi fi ne boo seetee seen ñu war a jàkkaarloo ci opposition bi hmm. mbir ñu war a jàkkaarloo hmm. daanaka ñu ci ñoom ñëpp laay wax sax ku ci nekk yaa ngi yor dossier. waaw parti li mu si am lente naag yoon. ñoom ñëpp ñoom ni képp moom képp ku pare pour jëlee lente dañ la utal dossier moo xam fu ñuy jàpp utal dossier nag. ba pare nag buñ leen a ceex duñ la setal dañ lay bàyyi noonu rek man lu waral loolu. voilà wa voilà léegi nag dama gis ne comme ñoom ñëpp dossier lañ yor te dossier yi na institut daf ci am. Hmm. normal na ñu boole seen doole pour xeex ndax kenn ku nekk ñoom am liberté parce que fi mu toll nii. Hmm. àndoo loolu mooy politique bi àndoo du ñu tàggalikoo dee bu ñu tàggalikoo ñoom ñoo koy fab. waaw ci si woon a boole ku demee ne Issa wala kenn pour ñu mën koo jiital bu fekkee ñii demuñu. moom ñu jiital ko mu dem Issa Sall men ah Issa Sall mu ngi ci moom mu ngi ci mu ngi ci sow mi di. sawu mburu Issa bi. ah mu ngi si poñse bi. waaw moom yaakaar naa mooy risque yi defe naa. mais est-ce que laa ne mënuñu woon a jëlaat kon Bougane Gueye mi yaakaaroon ni bu ñëwee moom dana leen mën a sowee Bougane Gueye génn. ah waaw Bougane Bougane jàpp naa ne mënta ànd ak ñooñu lu tax. ah non dama ko dama jàpp ne xëy na gis-gisam dafa utee gis-gis ñooñu rek. parce li ma li ma li ma gis muy teg ne moo tax man daan ak ñoom. Hmm. ay affaire couleur yooyu dama gis ne rek dafa dafa bëgg daan ak ñoom. Hmm. ay affaire ay affaire ay affaire waxtaan ba diggoo si ñoom ñett ñooñu. ba moom. voilà pour woo ko nag mu mottali leen. est-ce que du loolu. waa xam nga xam nga xam nga problème mu opposition bi dama la koy wax. Hmm. problème mu politique bu Sénégal actuellement la lay wax sax. politique bi problème bi eh, benn la muy Ousmane Sonko. Hmm. Ousmane Sonko mooy problème mu pouvoir bi mooy problème mu opposition bi. Ousmane Sonko. waaw parce que dafa am opposition bu koy opposé moom comme li ñuy opposé la comme moom li ñuy opposé Macky Sall la. Hmm. parce que dafa am politiciens yu bëri yu jàpp ne tant que Sonko ngi dund politiquement ñoom dañuy dee duñ dund. Hmm. beneen bi ci mooy âge bi mu am toll ci fi mu toll ci politique ak âge bi mu m quarante six ans loolu c'est la première fois musul am ci Sénégal. parce que ñëpp nangu nañ logiquement ne moom mooy chef de l'opposition loolu moom ñëpp nañ ko. mais nag nanguñu koo jiital nanguñoo topp ci kawam parce que aal bi mu am moo tax. wax nga dëgg wax nga dëgg. Ablaye Wade bi mu toll fii Sonko toll ñëpp dañoo nangoon ay affaire couleur yi kenn waxu ko dañoo nangoon topp ci gannaaw. Mhm, mhm. parce que bi mu amoon ñu bëri ñu ko doon topp moo leen mag. Mhm. beneen bi ci def sonn na ci politique daj ci lu ne moo tax ñu bëri jàpp ne mérite ñu topp ko. kii nag kii mu toll ci politique ak aas bi mu am mosul am Sénégal loolu révélation la. loolu moo tax gaa ñi nanguñ koo jiital waaye li normal mooy mooy moom moo ñu topp ci kawam looloo indi yëpp. loolu indi coow lépp bañ koo jiital topp si ginnaawam waaw dañoo bañ a jiital Ousmane Sonko te moom la yàlla jiital looloo indi coow li am ci opposition bi loolu de am na sara sang bi léegi kon daal ëllëgu opposition bi si élection yi di ñëw waaw am nga ci yaakaar waaw am naa ci yaakaar parce que Yewwi Askan Wi moom jàpp naa ne bu leen yàlla defalee sutura ba ba seen coalition bi taxaw hmm. jàpp naa ne mën nañ fi jëlee li fi nekk mën nañoo li fi nekk mais bu Ablaye Wade bi nag kii nu mu tuddati ñoom euh, Diop de Croix Ablaye Wade ñoom ay Thierno Alassane Sall ñoom Bougane Gueye sax mën naa mu dem ñooñu ñëpp est-ce que buñ doole li ma li ma gëm mooy ñooñu yëpp système bi la nekk système ban ah mooy système bi mooy doxalin bi ñu wax bi bëgg rek mu jógee Sénégal mooy doxalin bi fi nekk ne nii kay système ak ñàkk système amatul fu mu ne nii kay lépp système bi la tout waaw waaw waaw waaw xam nga xam nga bu xam nga buñ ne système système bi du ay jëmm mais li ñuy doxalee la mais xam nga Ablaye Wade bul fàtte ne Ablaye Wade bi Alioune Badara Cissé génn àddina dafa am benn benn benn benn lettre bu mu bind. ni lan. benn benn benn bu mu def nee dafa bëgg famille libéraux yëpp. Mhm. delluwaat nekk benn. Mhm. joxantuwaat loxo. Mhm. mooy njabootam gi njabootu Ablaye Wade gi ci la Idrissa Seck bokk ci la Macky Sall bokk. ñeneen ñi ngi fi tudd ay Diop Decroix ak ay ay. ñi ci def ñëpp ci njabootu Ablaye léegi nag njaboot gu famille li waroo boobu ñoom ñëpp benn ñoo bokk benn gis-gis ñoo bokk lu ñu doxalee politique hmm. maanaam ñoom ñëpp ci système bi lañ nekk. Hmm. moo tax dama dem ne waa système bi yëpp danañ dajal danañ dajaloowaat nekk benn ñoom ñeen seen biir. loolu la Khalifa Sall ñoom moom bokkuñu système bi. waaw non non xali Khalifa Sall amaana sax comme mu ngi be booti mu ngi mu ngi ànd ak ku mel ni Pastef te Pastef dafa mu indi. mais Pastef moom bokk ci système bi. non ah waaw li ba li ma gisagu fii de doxalinam uti naa du dama ko du dama leen faral nag parce que man bokkuma foofu man damay analyse rek. déet man kay xam naa ne yow yow ndaanaan nga boo xamante ni jàpp <laughs> naa ne Sonko. Hmm. Euh, moom rek laa li leader politique bu taxaw di wax nañ dajale ay ñaar dërëm ak juróom pour pour mu mën ko campagne yi. Hmm. loolu dafa bokk ci anti système ndax waa système bi du ñu doxalee noonu dañuy jëli ay milliards yoo xam ne kenn xamul fu ñu ko jëlee. Hmm. xëy gàddu ko di jënd Sénégalais yi waaye moom mu kon jàpp naa ne idée wala si bi mu am. bu ci hmm. Khalifa Sall àndutoon du ànd ak moom. am na solo sang bi xam naa ne Kaolack nañ fa dugg. waaye dinañ defaat spécial émission pour Kaolack euh, ñi nga xamante ni ñoo fa nekk pour nga am si ñoom yaakaar ni war na leen mën a dénk Kaolack ba Kaolack bokk ci réew yi ñu gën a bàyyi xel ndax it Kaolack jàmbat ya bari na fa ka nee nañ mbalit ma bari na fa problème ya bari na fa ay gone ñëw fa di laaj ay mag di laaj. Hmm. ay commercial di laaj ñëpp di laaj Kaolack. kan nga yaakaar ni Kaolack tey jii war nañ ko mën a siggil. pour réew mi mel ni yéen réew moom fa bokk man. Mhm. Saalum Saalum man Saalum Saalum laa waaye dama jàpp ne Saalum moom Saalum moom nguur gu ma ko toog Sénégal. Hmm. sa sarax mooy Saalum. Mhm. maanaam Saalum Saalum moom ñoom état bi ma ko nekk rek da nga ànd ak ñoom defal nga leen dara wala moo jeex. ah bu ma sa toog rek ànd nañoo ak yow. waaw ma waaw dama Kaolack moom dama gëm ne 100 pour cent la fa Macky Sall di am loolu laa gëm man. yow mii. loolu laa gëm waaw. xanaa Moustapha Niass a tax. non du Moustapha Niass sax ñoom noonu la ñu Kaolack président bu fi nekk dañ lay jox sa ñoom dañuy joxe seen bopp. ñoom dañuy jébbalu ndeysaan ndeysaan parce que ba léegi ci ay saako ceeb ak diwlin ci lañ nekk ak xaalis <laughs> ñoom politique boobu ba léegi génn guñ ci. <laughs> waaw wax dëgg yàlla samay mbokk lañ sama saam saam samay mbokk mais ba léegi génn guñ ci politique boobu koo ci jox saako ceeb diwlin mu jox la sa kar mu jox la kartam. <laughs> sooy waaw ah, loolu mooy li ci nekk. sooy parce que Kaolack Kaolack ni mu mel jamono Senghor ba léegi Kaolack ni mu meloon noon la mel changement amul tey la mbalit mi gën a bëri tey la gën a salte tey la yooyu gën a bëri. <laughs> waaw te leader ya fa nekk suba suba bu ñëwaat taxawal askan wi indi seen saako ceeb ñu jox leen seen kartam. ah sëñ bi sëñ bi sëñ bi loolu nag. sëñ bi loolu yow mi ci nga de ndax wax dëgg yàlla yàlla yàlla xëy na moo ko bëggee noonu. mais sang bi loolu nag est ce que yéen ñi nga xamante ni respecté imaam ngeen wàcc ci téere ah. waxtaan waxtaan ak Saalum Saalum ñu ne nag saako ceebal bi ah, demul diw la bu leen si wanteer seen bopp waaw am na solo bu fa nekk de ñu ngi góorgóorlu xëy na jàpp naa ne dana ma ko jeex. Hmm. waaye ba fii ñu moom dama jàpp ne Macky Sall 100 pour cent la am li ma jàngat. ndax loolu ñu wax Macky Sall am na ko saako ceeb ak bu dingub diw waaye non Sonkourou moom titre foncier la moom Macky Sall moom dañuy wax tuuti rek titre foncier la mais Saloum du titre foncier la. Hmm. parce que politique politique bi Macky Sall la yor ay bourse familiale ak yooyu ñoom ñooy lañ bëgg daal. Hmm. ñoom ba léegi ci idéologie boobu lañ nañ la nekk. waaw donc ñi ngi ñaan yàlla nag yàlla yàlla changé mental yi parce que Kaolack wax dëgg yàlla war naa sa war naa dépassé fi mu nekk. waaye daal yow ni nga ko gisee gouvernement bu fi mas a ñëw rek. moom da koy gagné moom. non gouvernement bu fi ma sa nekk moom li la jaaxal Kaolack Saloum Kaolack li ko wër bokk ci. Hmm. foofu nee naa la 100% la fa la fa Macky Sall loolu loolu Abdou Diouf loolu la fa amoon Senghor loolu la fa amoon. Hmm. Macky loolu la fa am ñoom Saloum jaaxlu leen. Ah, kon daal kon daal. Ah, politiciens yi nga xamante ni croise Ousmane Sonko yamuñu bañ faa jege ginnaaw yoruñu. Ousmane Sonko de néew ma du fa am dara de waaye gëw ma mu bëri de. parce que yorul xaalis da tax. bu yoroon saako ceeb ak bidon diw mën na fa am dara. waaw waaw Kaolack daal moom boo yoree ay camion ceeb ak koppar. waaw su boobaa man man nga am man nga am parce que ñun ñun suñu mbokk yi lu teew lañ xam daal xamuñ xamuñ luy ñëw suba. ay digaateeg yooyu. waaw nañ xiif tey nañ xiif tey bu suba nañ sacrifié wu suba mu baax. <laughs> waaw nañ dëgg de. <laughs> waaw loolu mental yi bëri egguñ foofu. kon daal ñoom dañ fa nekk naa ay suñ tëli bi war a dugg fii ak raaraan bi fii ak yooyu ñoom daal non non da nga koy dégg hmm. dañ naan man li teew laa xam kaw lu ñëwagul kii ñëw suba xaw ma ko politiciens yi ñëpp a yem. wax nga dëgg de. donc ñu ci bëri xalaat boobu la ñu am. ah sëñ bi kontaan nañ xam naa ni. waa waa ñoo gën a kontaan. fii ak alxames bi di ñëw incha allah bu xëtut incha allah dinañ dugg si si Kaolack si boppam. waaw ñu waxtaan ci incha allah waxtaan bu yaat yaatu fekk nga dajale fi ñu ko war a dajale ñun de ñun de Kaolack wala ñaam wax dëgg yàlla moo moo nekkoon euh, moo moo waroon nekk dëkk bi gën a développé ci mhm. euh, dëgg yàlla doy na war. waaw incha allah xam naa fi ak alxames rek dinañ si waxtaan ndax euh, comme ça nee nañu mm. yoon bu xat beeg oto mali yeeg yooyu yëpp incha accident yi fi amoon. yooyu yëpp daañu si waxtaan incha allahu rabbi sang war war nañoo góorgóorlu daal ci élection maire yi di ñëw ñu jëlee fa maire ya fa nekk indi fi maire yu bëgg dëkk ba déet maire yooyu dañoo yore ceeb sëñ bi ah waaw waaw waaw waaw mais il faut ceeb bi il faut ñu bàyyi ko nag bu tuuti man euh, xaw a muñ kër tuuti waaw hmm. ah, ceeb bi ko doo gaaw am changement ah, am na solo sang bi am na solo ah, ok kontaan naa trop lay sant bu baax di la gërëm sooy bu jóob mi ngi lay nuyu jërëjëf jërëjëf sooy bo gi lay nuyu bu baax waaw nuyul ma sooy ma nuyul ma ko bu baax nuyul jërëjëf jërëjëf mi ngi noonu ñu ngi koy siyaare bu baax sang bi di ko sant di ko gërëm di am mbégte contentement bu baax ci ànd bi nga xamante ni mi ngi koy ànd ak ñun muy nag euh, kilifa gu baax a baax nee naa ko CCB CCB la te wax dëgg yàlla day borom xam boo xamante ni Sénégal yu bëree bëree bëri dañ koy tàllal loxo plateau yu bëri di ko woo waaye man moom dañu am na yoo xamante ni moom nekku ci te du sa dox waaye fépp fu ko CCB soxlaa moom mu teew. kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di jaajëfal soin bu Diop di jaa jëfal saa njóogu mbeng xam naa incha allahu rabbi nag saa njóogu mbeng lim ma def fii ak suba dinaa ñëw wax leen ko incha allahu rabbi ndax dafa am kum ma booleel. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi gërëm bu baax ma dem jóob di ko wax kontaan nañ lool waaye jërëjëf soin bu mbokk yaa ngi bàyyi xel seen bu am solo lu jëm ci wàllu information lépp loo xam ne dafa jëm ci alerte wala lu ñu war a dénoncer ci réew mi lu jàdduwul fii ngeen koy amee ci chaîne GCB soo bëggee am bépp vidéo bu fi jaar fii ci GCB bésal cloche notification bi moo lay man di may nga am bépp vidéo buy jaar fii ci GCB mi taxaw ci alerte ak dénoncer ak génn fi mboolem loo xam ne ayib la walaw ñaawteef ci réew mi